Euh, sëñ bi ci loo ne yaa ngi ci jàmm damaa seetaan YouTube bi léegi gis nga joxe sa numéro wàllu xew TV mbir mi daal doy na waar doy na waar torop torop torop torop torop torop affaire bi moom luñ war a lijjanti la man waxuma la Ouzin Keita sax mais Pawlish bay laa mën nan na ko mën a nit mën a joxe micro Pawlish waxam yu vulgaire yi muy wax Pawlish du nit nan ku ma seetaan yàlla nga dem safara non Pawlish du nit waaye Pawlish lañ war a jëlee fii ci réew mi Pawlish man Ouzin moom dama koo jëlale ndax Ouzin moom kulun rek lañ ko jàppee kulun kulun lañ ko jàppee mais xamul loolu mais gëm naa ne nag am na lu nekk derrière Ouzin lii du Ouzin mbir mi yéeme nañ ko gëstu te suñ ko waxul ñun ci ñëpp lay këpp ci ñun ñëpp lay këpp yàlla day xëy xëy xëy xëy lem asamaan si suuf si te genre Ouzin Keita gi moo koy waral. lii metti na waaye metti na nan ci wax ku seetaan yaa ngi ñoom yéen a yem àtte fi mu toll nii ku seetaan yaa ngi moom yéen a yem man de pare naa pour jàpp ci man waaw ndax l'islam rek moo ñu fi nekkal lii ëpp na ëpp na torop Pawlish moom mënuma ci moom kaay ma ray la man Pawlish xamul nu ko nit mën a seetaan ne sax bëgg ko man moo ma jaaxal Ouzin Keita moom man nit gëw ma sax nit bëgg na ko Ouzin gëw ma ne sax nit bëgg na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah